waaw tabagisme gis nañ ni c'est respecté. Mm-hmm, c'est normal bon koo dem nag fekk fay bërëb yi waaw c'est normal waaw lu baax kese tabaxul kër. Mm-hmm. lu bon kese it yàqul. kii kii day mën a yox mais nag lu baax ak lu bon la ñuy boole pour am mooy li ñu doon ci diversité rek. Mm. loolu bu ko nit ku nekk ab secteur sa morom rek yaakaar naa dañuy dund ci jàmm. Chérif Ousseynou moo ñu gën a leeral nañu nit lépp lu lay feebar ci sa loxo bi la nekk. waxal Chérif Ousseynou Seydina Issa Rouhou Laye. merci parce que ñu bëri duñu xam. waaw ah, Chérif Ousseynou Laye. duñ ko est-ce que duñ ko laaj waa Régis sax buñ ñu wanee mënee wan photo nataalu waaw nataalu Chérif Ousseynou Laye. moom mi moom mi samp. Euh, waaw moom da ko doon gis nii rek. vraiment parce bokkoon na ci ñi nga xamante ni comme comme ni ñuy tuddee mouridisme nga ni sëñ Modou Kara. Mhm. nga tudd nga tudd Cheikh Ndigal ñu nekk ay ñu nekkoon ay jeunes yi nga xamante ne dañu engagé ba pare am am nga nekk comme ay berger yor mm-hmm. mbooloo ndaw mm-hmm. seen ginnaaw xoolal boo duggee ci Tijaan yaa ngi gis daayira Moustarchidine wala Moustarchidaat mm-hmm. këru diine yëpp daanaka Sénégal am nañu ay voilà am nañu ay jeunes yoo xamante nii dañu am comportement ba pare di dajale jeunes yi donc mu nekk al Ousseynou al Ousseynou Laye ibna Seydina ah, Issa Rouhou Laye voilà nii ah, docteur de la jeunesse moom la ñu doon wax docteur de la jeunesse ndax duggee Cambérène moom ay photo la nga fay fekk c'est normal ndaxte maamam bi muy woote 1883 dafa ne woon diine ja mhm. xale ya ak mag ñu muus ña mhm. mag ñu muus ña waaw mooy li ma la wax le principe dialogue parce que par A ou par B day am. macha allah waaw bu mu nee diine ja xale ya ak mag ñu muus ña. Mhm. bon loolu mooy loo xamante ne mooy lavenir mhm. parce que jeunesse c' est l' avenir. mënuñu attention danger mooy nit ki sa feebar booy feebar sa loxo bii lay jóge di dugg sa gémmiñ. Mhm. lépp li nga xamante ne muy drogue bi ngay jël nu mu ko daan waxee. yow yaa koy jël di ko di ko di ko def sa bopp. di ko def sa yaram bi ngay jël di ko def sa bopp. nit warul détruire santé parce que yàlla da ko bañ. da ko da ko tere nit warul détruire lépp luy détruire sa santé waroo ko utiliser. te actuellement nit ñi accro nañ si bàyyi laay bi 1883 bi bu njëkkee woote loolu dafa ne képp kuy jëfandikoo pon kooku daal laa xam ne yow sa mbir ak moom dina metti ndaxte buñ bu ñuy suuli néew sax yow amoo droit jàpp si jaag bi. ndax même bu doon sa jur walla sa doom walla lu mu mënti doon si yow kenn amul yow muy jëfandikoo loolu amoo droit teg sa loxo ci jaag gi baaxul si yow mi nga xamante ne yow la ñuy gunge bon mu nekk loo xamante ne dañ ko teel a foofu ba ba mu dañ fa ba nga xamante ni ñu bari xam nañ danger bi si nekk léegi nag science jox na ko raison ci li nekk si problème mu tabac. te ñun ñëpp xam nañ ko bon nañ ko gën a moytu. xeetu forme yëpp nag muy chicha beeg yëpp yu mënti doon nañ ko moytu.